ku wéeral dëgg-dëgg tawxiid mënta ñàkk mu woo nit ñi ci laa ilaha illa allah ndax da ngay sikki sàkk ci tawxiid que ci sikk sàkk loolu kéeféer bu mag la kon lan moo tax doo nit ñi ci tawxiid mbir moo xamante ne amoo ci sikki sàkk lu gën a néew loolu mënta ñàkk nga woo ci nit ñi ama ubbee ak fatawa loolu mbiru borom xam-xam yu mag yi la kon la la war yow mooy nga jàngal nit ñi tawxiid woo leen ci tawxiid mooy tandiku la leen bokkaale yàlla lii def bokk ci wareef yi gën a màgg kon ko wéral dëgg-dëgg tawxiid mënta ñàkk mu woote ci tawxiid